yow yow damaa bëgg nga régler yow nga yam sa musóoru seytaane bi ngay kollu di jaay fumiste xam nga ne gëmoo dara yow bàjjan yow laay waxal gis nga li am ci kër gi xaw ma yëngoo ko xaw ma yëgoo ko nday njaay war nañoo ñàmbe war naa toog fii ba toog nii di muy wax waxi màkka ndey ndaay na ci tonet ne moom day dem màkk ba fi mu toll nii billet bi moom lañ ko bëgg a jox pour mu dem nday njaay lan la fi liggéey nday njaay lu mu fi def nañu waxam dëgg tey ji dem màkk bu waree man lañ war a jox ma dem eh ma ne nga dibbali ma laa xiiti bu dem dee jot man lañ war a wax ma dem nañ waxante dëgg kër gi fii maa fi gën a réglé maa fi gën a yiw nañ waxante dëgg ki ki ki ki xool ma kii Rosa bu weng bi waaw yaa fi daa xatas effectivement man bu leen ma ma toog yéen ma liggéey nit ku ne bëgg a déglu ma ne li nga liggéey rek ngay fayu amoon naa ne bu ma la woowee bu yeboo li ngay liggéey doo ngay fayu li ngay liggéey ci biir kër gi moom lañ la fay waa léegi ba bu moom biir yëkkati na may ko ndey njaay moom mi ko déggal toog ci biir kër gi mhm. yéen nga xam da ngay dem di dikk di dem dikk aller retour aller ki toog ci biir kër gi moom la ko jox mhm. man aller retour bi may def damay commerce ana commerce bi nga def waaye yow lu loo fi jaay loo fi indi as lan nga jaay as ñu gisee ko ñu ngeen di fi di fi dara ni maa koy jaay ji waa kër gi jënd leen as indi woo fi dara li gën a neex nag laa leen di wax man li ngeen wax dama ko dama ni sën sama turandoo da ko yóbbu màkk. kan moo ko yóbbu màkk sama turandoo. Hmm. xadi moo ko yóbbu màkk. Hmm. waaw. Hmm, sën day dem màkk. day dem màkk waaw. ay sos la wala say wax yi. waaye te màkk danaa ci fen ma man li tax yéen yéen respecté wu leen ma ba lu ma wax man du dëgg. waaw yaa ko ni nga bindoo rek la. waaw ni ma bindoo la waaye tey di nga ci am gàcce. waaw ah, mais yow mii yow yow yow yow yow yow yow. est-ce que est-ce que est-ce que. man ne cas bi critique na nag. waaw man mii man ma. toog léegi fi liggéey nga fi góob ndax dégg ak ay loo xamante ne dañ koy soxla ay tàndamaak bu bàyyi dara incha allah yàlla teg la ci yoonu jàmm ak salaam yow de doo dem sa wéy yi doo dem fenn yow fenn nga dul dem man man naay dem man naay kii dem as man te léegi je ma je parle moins fort ndax fi ma war a dem la ki ma war a jàkkaar loolu sallallahu alayhi wa sallam yii day dañ ba bàyyi ma rek ma dem concentré wu xool nu may defee samay taraaf ak samay waaf. ak nu may sànnee saylan nga ne déedéet saylan nga ne taraaf ak waaf yoon baa ngoog dem. day du ko la waaf kenn du ko de. ma xamul lu ñuy wax ndax man dem ko ma màkka. da nga xam li ñuy wax de. yaa ngi dégg yàlla baax na eh, eh, eh, yow ay we. kenn as yow danga la ay we ay we man gis nga soo ma matul. waaw yow ma eh eh eh. bandi laa gënal ci man de gënal ci man dama lay door ba nga bëgg a gënal ci man. fi mu toll nii kii laay bañ man. da ku ma gaal ma dem ñu ni ma ina loolu laay bañ. mais lu jëm metti na de li ba ci màkka. situation bi mu demee man moom vraiment ça me léegi nag yow jëlal ses responsabilités yaay borom kër gi man du ma borom kër gi. ma jël sama responsabilité ak ah, doo jël sa responsabilité ba. tey nangu nga ni may borom kër gi. dama ne yaay sama kilifa laa wax ci biir kër gi. Hmm, encore jëlal say responsabilité man maa la ko wax man Thiam yaay sama mag loo wax loolu laay def loo bëgg leneen. tey moom di nga jaaxle maay sa mag maay kilifa maay borom kër gi loolu lépp nangu nga ko tey. nangu naa ko <laughs> loolu yomb na trop. yow yaa war a jël say responsabilité yow mi indi solu bon fii ci kër gi yaa war a jël say responsabilité nit bàyyam di dund ngay taxaw place bu bàyyam xoolal nay def ak may wax mu naan ma ay kën sa waaw man dinaa jàkkaarloo xëy kër gi fii di jàkkaarloo ay kën sa man ah? lijjanti sa doom ji moom laa am lu ma lay wax man. baax waaw yaay boroom kër gi kër gi loo wax loolu laay def man sama yaay kan la la dénkoon du yow nga bëgg a taxaw fi naan kër amul kilisa dama ni baax loo bëgg loolu laay def waaw. loo ma wax rek ma ne ma exécuté parce que man j'en ai marre mënatuma ci dara jël sa responsabilité jën naa lépp teg ko sa loxo mu jeex takk tey daal tey daal jaaxle nga ndax sës nga ci miir bi. waaw waaw moo tax. tey man bu ma ci desee. waaw ba jël samay responsabilité man gendarmerie laay woo. ñoom laay woo accuser leen ni ñii ñi ngi ni yàmbaa la ñu yor yor ay ngànnaay ne ci kër gi waaw te boobaa dañ leen di jàpp. très bien woo gendarmerie nag mu ñëw jël si leen ñoom ñëpp yóbbu leen jaaykatu yàmbaa lañ dañuy tox lu ne la ñuy def waaw dañuy yéeg ba ci kaw wax leen loolu lépp waaw. léegi mënoo téléphone ba ñu ñu ngay signé ma ñëw signé. léegi yow mënoo da balaa sañ yow mënoo def noonu yow mi sa doom yow mi mi ñaan du ma ko def parce que moom ma kër gi ah dañ maa hébergé yaa ma hébergé defal loolu jël naa lépp xoolal bàyyi naa la lépp jot naa lépp jox la ko damaa hébergé mais yow yaa jur yow yaa jur xam nga li ma la wax waaw léegi nag li ci des comme noonu la demee man lépp dinaa ci taxaw jël samay responsabilité man bu soobee maa ngi leen di xaar ñoom ba ñu ñëw maa ngi xaar xaw ma kën sa xaw ma nang waaw nee na kër si day ñëw xaw loolu la ma expliqué waaw ne su këlta ñuy nekk xaw ma la maa leen di xaar dama ne yow daal jël naa lépp teg ko si na yow laa ko bàyyee sax léegi su këlta ñëwee su fekkee day ñaan mu ñaan su ñaanul moo xam nit fu muy taxawaalu sax wala muy am doom war na koo xool waaw man sax mën naa sant ndax gis nga sama doom bi ay masaar ak ñoom ñëpp gis nga dañ civilisé nañu nekkuñ ci ay yàmb ak ay affaire yu demee nii waaw loolu moo taxit waaye yow fu la neex duggoon waaw ah, kii man est-ce kii sax man bon. ah looy mu jógee. fu mu jógee waaye yow nga toj waagu ñaay fu ne. nga ni waaye yow ba Gédo fépp nga toj. Ah, yow waaw yow moom nga ma dugg na duggoon nga ah, xam ne Gédo yow it waaw mais foo xam ne rakk fu mu ne daw yow daa mën a seet si foo naa la mën a si mais xam naa fa nga laa njaat yow it ñoom maa ngi leen di xaar daal am nga sa pourtant waaw nañ bàyyi noonu rek garaaw. yow daal jëlee sa responsabilité. jaax na waaw kon jaax na maa ngi leen xaar na na Colisée ñëw rek jaax gisee ma wool leen eh, damaa gis ni kinne mi uma baayoo la mm-hmm. xale bu dëggu la ku ma bëgg la ku ma fonk la ndax am nga nit bu la taxawoo fen fii kooku mbañee mënu faa maa ngi lay gërëm Fatou kontaan naa ci yow waaye na yow mi nga xam ne yow la ma yàlla booleel bett nga ma ba ci kanamu yàlla dégg naa lu ne ma gëm tëx luub lu ne defal naa la ko bind lu ma am defal naa la ko lu ma yor fii defal naa la ko lu ma yor feneen it maa ngi koy bëgg indi pour jox la ko ndax kontaanam ci yoo waaye sama xol yàqu ndax mag mu toll ni yow bu ma la joxee sama xol. wax la yéene bi mu am ci yow yëpp nga di ma jënde koo xam ne la garay nit foo xam ne nii kooka yaa ngi ko xamul ci atul belees xanaa loolu man moom laa mënul comprendre man mii waaw moom mii moom ma ko wax mu ngi nii toog yow kii li mu wax kon gëm nga ko ah ko wax te mu ngi nii toog ah, am na fitu toog di fekk yow kii xam nga ne mëstaan suñ diggante lu ko yàqu dong lay wut mag mu toll ni man dinaa fi ne di xam nga ni man ñu ñàkk fayda yooyu dugguma ci de yaay yaay la toujours très bien yow ay nga de xanaa su ma toogee sax nga rus a wax loo xam ne du dëgg yow man ak yow jàppante kër gi man la yaay li nga def ni tegoo ko fenn fii nga fi indi tonton ñaame man la bugguma ko parce que boobu xolul doom moo ma jàppoon rek ma fiir ndax bugguma ku remplacer sama papa mais tey tonton ñaame prouvé na lool lu tax tey jii ma accepté ko comme mu nekk sama beau-père tooy doo bàyyi na ba loolu yëpp am ba ñu lay bëgg a tax yaay nga may indi sàmba suura bari bi ñëw ci kër gi ay guddi di la fi récupérer waxante wuñ loolu ba ñu xeex xeex bu metti man kay xeex ma la yaa parce que tout simplement ak homme tax moo tax ma ñëw ba ci moom ne ko sama yaay li mu nekk ni du dëgg yoon dama la koy wax te kooku du góor gu baax kii mooy góor gu baax ma ragaloon du ma fi toog juumaa noo mu ne wele wax daal seede lay bay si bàjjan dafa am lu ma la bëgg laaj. te li ma lay laaj dama cee soxla nga tontu ma nag te yàlla rek tax. bay loo bokk. ndey ak baay. dina bokk ndey ak baay. waaw. Euh, yéenewu ko sa doomu ndey soxna. kan ci baax. ndax yéene naa ko sama doomu ndey soxna. waaw koo xam ni sa doomu ndey mooy koo xam ni sa xarit la. Mm-hmm. waaw koo xam ni sa xarit la yéen ñaar seen diggante dëgër na te nga beñ nga mu yàqu yéene nga ko. kon yéene woo ko daal sa doom la yow. waaw ba li mu nekkee li mu nekkee ba da koo tey saa yu xëy takk jabar fase loolu lañ sonn. kon ba xam doom ju baax war naa yéene ba yaayam. déedéet déedéet absolument. Euh, man nag dafa am benn lu ma benn mbir mu ma dal te fii dama dalee ci kër gi. ci kër gi. ba xam dégg nga ma. kër gi dund naa fi loo xam ni su ma gisoon nit di ñëw. ma yéene ko lu baax dama naan ko bul yegsi. boo amee ful la ba xam xam nga fa nga jëm. amee ful la. mi fi ne muy fàtte démb bu ñu amee tey dañuy foog ni suba du am moom am nañ tey rek moom ki am la ñu gis kon nag kër gu mel noonu sa yaay ni dafay dugg si kon war ngaa jëm sa kéem kattan ba du yegsi. sa wala sama yaay sama yaay man. sa sama yaay daal xaw ma fu ko ba jaar xaw ma nan la def ba yàq xelam. at fi mu jaar moom yépp mu fàtte ko. sama yaay ni day dugg ci baax. Hmm. ba ni da koy jël soxna. léegi nag dama bëgg man sama man sama nit man sax bariwul lu muy sollicité nit man tàmm ma lool di soxla nit di la woo di waxtaan ak yow ci benn mbir. nga jaaxle. mais jaaxle moo tax ma woo la yow. Mhm. ngir nga jàppale ma ba sëy bi bañ sa yaay ba da koy takk nga ne. Ah, xanaa yow yegsiwul ci yow. oui sa yaay moom kañ la fi commencé di ay mbëggeel doon magum jëmm am euh, trois cent cinquante ans la xaw ma di bëggante lan lay bëggante ba mi. waaw loolu nag moo ma jaaxal loolu waral nag ci mën nga taxaw ba sëy bi bañ am nga sëy bi bis bu amulee loo bëgg naa la ko defal. loolu sax buñ ci dugg dugg ci problème boobu nañ nañ diggante sëy ba pare yow sa yaay ban mbëggeel la war a am ban cofeel la war a am ci ba. loolu ma jaaxal. yow yow ba nga yow sa papa ndeysaan ak sa yaay dañuy fàtte yaa ngi fàttaliku. yow bi nga nekkee xale ba léegi man mii maa ngi lay door a nemmeeku bëgg dugg ci biir kër gi sa ndey nemmeeku la sa baay nemmeeku la sa baay daa di man ba daa laa bañ nga jéggal ma ci kàddu yi te ne bu wëlbatikoo di jël sa ndey mm-hmm. sa ndey moo ñàkk fayda ndax nag nit du la jël bañ la ba pare jël sa doom bañ ko dëkk bépp di ko wax sa doom màgg tekk tey ji nga bëgg naa damay takk yaayam takkul yaayam de mm-hmm. takku sa yaay de takku ngir lu koy takke ngir xaalis man xam naa ba bu baax sa yaay tànkam da ko ci biir kër gi bu ko leeree muy jàmm hmm. lu ma ci mën dinaa ko ci def hmm. moom lan moom góor ñi ne fi góor ñu baax ngi ne fi muy seet ba mu ba mu bon mi nga xamante ni li mu yor sama àttanu ko saa yu xëyee takk fase saa yu xëyee takk fase hmm. ñun kër ga dañoo sonn ci ay seet war a dañ doy na sëkk ay seet man bëggatuma njëkkee bëggatuma goro bëggatuma kenn mu jël xolom bi mel ni yaa sa daggate ko ba mu sew ku ne mu sànni la te ay ween lay bañ a gis ween mu bëgg see jigéen ju am wen jigéen ju wàng du ba loolu takk la waaye bii nag moom xoolal maa koy bañ man ma ma déera euh, kër gi sax noo ko xooxuma ko waa kër gi ko wax nee ñoo yëg mu siiw mais waa kër gi kër gi kër yàlla bii na yem suñu diggante na lijjanti ma ko maa ngi dem man kër gi nii man sa problème boo ko waxee danga naa ma na yem fii lii man dama koy waxee waat man dañaa ne dong laa ko fi wax Ndeye Ndiaye dalaa ko sax ak sën waxuma ko fi keneen de ay man fu jëm ay ba moo ñàkk jëm ba mi lan moo ko dal ba moom jigéen lay bañ a gis jigéen. waaw mère yéen ngi toog. waaw ah, ñu ngi sant bu baax. waaw soo bee l'occasion comme ko ni maa ngi leen fekk ngeen toog ci salle bi. pour mun a waxtaanee waale ak yéen. parce yaakaar naa ne xam ngeen ne sama takk gi ñëw na ba pare. te comme moom yéene fi représenté sama yaay loolu moo taxoon mu bëggoon ni waxtaanaat ci ma jëlaat lépp tegaat ko seen loxo di ko rafet waaw bàjjen moom moom xam na mm-hmm. jarul ñuy wax wax mu comprendre tante yow wax nañ ma ne yow yow ku mun a togg ceeb mm-hmm. moo taxoon nag léegi affaire lekk gi yow lépp sa loxo lañ ko teg. <laughs> tànn loolu bàyyi man moom moom ma teg dara bàyyi ma nu mën ne daa ko def du dëgg ndax bés bi suñu bis la te suñu doom nga man lépp lu fi waaye di naan lépp lu jus sucré dinaa ko indi incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaram. loolu nag mooy problème bi parce que ñun duñ naan sucré. loolu la ñu naan. ñun moom laa nañu sucré loolu moom dinaa ko teg si loxo bàjjen bàjjen moom xam na waa axlu bi. xam naa lépp. <coughs> nga neexee nag sucré yooyu. Hmm. bu ngeen gan yi ñëw ñu bokkul ci axlu bi nga jox leen ko. mais axlu bi moom bugguma kenn jox leen sucré parce que duñ ko naan dangay yàq sama mariage te bugguma ngeen yàq sama mariage. <laughs> duñ ko naan loo leen ndox. duñ naan ndox ñoom ay wine lañu naan. wine waaw léegi man loolu amul benn problème man ci kaw dinaa ko gérer suuf naa ko gérer lépp lu waaye dina bëgg a toj rek man wax ma loo soxla rek man boo nee ma bàjjen rek dinaa xam fan nga jëm ndax booy yi xam naa leen gang yi xam naa leen xam nga kuréel gi gars yi dañ koy def te man dama yenn saa damay teew léegi nag wala man man naa gérer loolu am benn problème waaye foofu moom dara loo xam ne dina ma si jaaxal. waaw affaire sécurité affaire sécurité bi affaire sécurité bi ñaari booy yoo xamante ne bëgg am na ñoo xam maire yoo xam ñoo dugg ci kaw war ñu ci kaw de dañu yem suuf loolu jaru ko mm-hmm. affaire sécurité mm-hmm. que mariage moom xam naa waa axlu bi bu ñëwee kenn ku si nekk di xam foo war a toog mm-hmm. lenn rek moo ma jaaxal sama tante mii moo ma jaaxal waaw que xam naa ne maag yow moom suñuy affaire du mooy loolu daal ah mais mais as ki li mu wax da doon li may ma loolu rek waaw comme moom nee na daf sas bàyyi ma wax rek bàyyi léegi nu kay comme yow dégg sama jëw ci kër gi nee dama am la toog man moom du ma la laaj lu bari ndax xam nga kii xew boo ko laajee lu bari day métti ci moom ku àttal waaw ma bëggoon rek nga def ma benn cinq cent mille lépp jëm ci togg man na gérer ko. incha allah añ beeg reer beeg yëpp léegi lu toll ci ñaari personnes ñoo ñëw. ñun moom xam naa waa aflu bi quarante personnes laa xalaat ne dinañ ñëw. mën na am nag xam nga ku nekk am na foo jóge dëkk bu nekk nit mën na faa jóge. réseau bi yéen en plus de ça fàtte woon naa la wax bu ñu yërëm. kaane gi na saf saf saf saf saf moom loo mun a mariage la ku ñëw par exemple ñooñu ngeen wax noo kaane yi noo kaane yi kon mënuñoo bokk si axlu bi man axlu bi rek laa gérer ñun ñooy ñooñu laa bëgg ñu nekk lépp lu ñu soxla suba ba ngoon jot ñu defal leen ñu des na xam naa seeni i invité la leen léegi nag yéen bu leen neexee ngeen toggal leen leneen wala ngeen defal leen ay jus loolu moom yéen la mais ñun moom suñuy affaire jus bokk ci te ceeb bi na saf sàpp ak kaani. waaw léegi jox ma 500 yi. Ah, ngeen wax non sucré yi. ma defal jus sans sucre daal. dinaa la defal jus yu toj mais du ma si def suukar. Hmm? c'est que ma jaaxal bàjjen sama ñoom tante ñoom duñ nekk ay nante. moo ma jaaxal yéen comprendre. <laughs> tante loolu yéen a koy def man maa ko sas. yow ceeb <laughs> maa koy defal. ceeb bi sa xaalis sa morning yaa koy def. daal nday hmm? moo ni nga mooy defar ay jus sama bàjjan moom xam na lépp moo tax li ma ci wax sànga daal li ma bëgg a wax ba bëgg ko wax jéem leen a waxtaan yi bàjjan ñuy waxtaanal ak ñoom am problème maanaam yéene fii sama yaay man la ñuy marié yéen kay daf leen leen man ñun defar def joxewuñ dara de waaw cinq cent mille defar cinq cent mille yow trois cent mille defar trois cent mille jërëjëf li ci sa barke joomi ngeen tey tey de mos gis lu mel nii ku ñuy takk waa bi ku ñuy takk mun leen yéen a lépp tey ngeen dee jëm koo dépensé euh, asu ñàkk jom la ngay rey asu as dunduma dafa tiit man damay daw foo daw jo daaw ba xew bi jeex doo daw dinaa la wax benn affaire xam nga yow hmm? dalaa umb fii gis nga kii lii mu wax boo ko lijjantiwul <laughs> ba xam ne rocc jëm ci ñoom laa ko jël firi rek bàcc ñoom laa ko jële <laughs> te léegi da xam ne duñ jël ñoom rek sànni. lii la xaw bañ la def liñ la sant ngëpp sànni lañ lay def jàllax la fële. sa <laughs> reewande gi fii lay reewande moom xoolal fii lay jeexee ci biir kër gi. am naa nañ ma def lépp buñ ma log daal. waaw xaw ma de la log am duñ la. ko sama seen moo gën ci yow de. jaay leen sama seen ma Idi wóor ma Idi. yow wóor